Des millions de Sénégalais de me nommer à la tête de cette direction, de cette délégation hautement stratégique pour le développement du Sénégal. Ce qui n'a pas commencé ici, qui a commencé ailleurs, mais qui a eu, je pense, cette concrétisation ici, puisqu'on se parle d'un pilier fort et qui continuera à être un pilier fort pour nos gouvernants et pour nos États damay euh, si remerciements yi bien évidemment y associer ma famille naturelle qui s'est créée en deux ans c'est d'abord la DER/FJ à travers le conseil d'orientation c'est des partenaires euh, qui n'ont pas été tendres toujours trop tendres mais c'était pour la bonne cause et pour la bonne marche de la DER donc au nom du Ici, le PCO est présent, mais c'est tous les membres du conseil d'orientation qui l'ont qui n'ont pas manqué de, de, de, de, me challenger, de challenger la DER pour qu'elle soit cet instrument qui est attendu et qui sera toujours attendu. Je ne finirai pas sans m'arrêter sur les millions de Sénégalais qui comptent sur la DER qui sont nos bénéficiaires, nos cibles, il y a beaucoup de noms. Mais en tous les cas, ceux pour qui nous nous levons tous les jours. Et quand je dis nous nous levons, c'est pour finir par les collaborateurs de la DRFJ. Deux ans YouGao, mais où on ne m'attendait pas, où je ne les attendais pas, mais on a su en tous les cas écrire avec nos moyens, en apprenant à nous connaître, des pages. Je ne dirais pas les plus belles pages, parce que quand ça relève du parfait, c'est du domaine d'Allah. Mais je dirais que nous avons tenté de répondre au maximum, avec tout l'engagement et toute la célérité et l'implication. Madame parce que ce n'est pas donné à tout le monde de travailler pour l'ADER. Et je répète, madame le délégué général je dis toujours aux équipes ngay def loo xam ne impact bi da nga koy gis directement ci dundu nit c'est une grâce la donc ku fi nekk fi dañu war a profité jaamu ci yàlla et je pense qu'on a tous œuvré dans ce sens lépp matul lépp doyul surtout xaalis bi mais bon ça c'est autre chose mais pour dire euh, merci aux équipes et souhaiter la bienvenue à docteur euh, Aïda Mbodj, Madame Gay. Euh, J'étais ravie que ce soit une femme, et je lui ai dit au téléphone avant même qu'on se voit aujourd'hui, que ce soit une femme qui, qui continue à perpétuer, en tous les cas à œuvrer pour la bonne marche de la DER. Et au-delà de cela, c'est euh, une personne, que, une personnalité, je dirais, que nul n'ignore dans ce pays, tout ce qu'elle a eu à faire à œuvrer pour le bien-être, je ne dirais pas femme, du développement social, économique. Donc quand on a, tout, quand on a dit ça, c'est que femme dit jeune ici, on est en train de se parler de la population sénégalaise. Donc euh, à, à, au docteur Aïda Bouch, nouvelle déléguée de la DRLJ, je adressé mes meilleurs souhaits, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous accompagne. moi je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de doute par rapport à, aux collaborateurs que vous allez trouver ici. Je pense que j'ai eu à le dire en haut. Nous nous des personnes engagées, xaaruñu ci kenn instant bi ñuy wax y en a qui sont sur le terrain euh, donc je pense que vous pouvez vous appuyer confortablement sur eux parce que les chantiers qui attendent aussi la DER sont énormes on va pas s'applaudir ni ñun ñoo fi mën mais je pense que li ñuy xaar ci biti y a encore beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup au-delà de de l'aspect financement c'est même comment mieux accompagner et c'est là où l'ADER va devoir euh, s'appuyer aussi confortablement sur votre expérience sur votre expertise sur vos compétences pour pouvoir l'emmener encore plus loin et je pense que njëriñu Sénégal yëpp la Et c'est l'occasion pour moi, euh, en ayant remercié le président Macky Sall qui m'a donné cette opportunité de servir à ces hauts niveaux de responsabilité, d'adresser mes chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye, qui a aujourd'hui notre destinée et où tout un chacun a son rôle à jouer parce que suñu Sénégal la yëpp Et encore une fois, je l'ai dit de part et d'autre, les postes à décret, ce n'est pas adossé à des changements de régime ou pas, c'est des postes qui peuvent changer tous les jours. Et c'est comme ça qu'on est qu'on qu tient un poste de décret présidentiel, un honneur, mais où on sait que chaque jour de nouveau religué en nous disant que ça peut être le dernier jour. Et je pense que c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Donc ce n'est pas un changement de régime. Je pense que c'est un Sénégal pour tous, où nous faisons tous partie et que nous devons continuer à aimer, que nous devons continuer à chérir et à lui donner le maximum. aussi dans la vie. Donc c'est sur ces mots, Madame le délégué général, que je vais euh, vous donner la parole en remerciant à nouveau l'ensemble des collaborateurs ici présents à Ninek Tipoli, et en souhaitant une très belle suite à la DRFJ. Et vive le Sénégal Merci. Mesdames, Messieurs, Madame la déléguée sortante, Monsieur le PCO, le président du Conseil d'orientation, honorables députés, Mesdames, Messieurs, Monsieur Gay, bonjour. Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l'ADER, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les responsables de projet, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires, chers invités, en vos rangs, titres et grades, tout protocole respecté, je voudrais rendre grâce à Dieu. Mais avant tout, comme je l'ai fait à l'intérieur tout à l'heure, en prenant à témoin les inspecteurs généraux d'État, remercier Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Les remercier pour cette confiance, mais les remercier au nom du Sénégal, les remercier au nom des familles sénégalaises. Ils ont réfléchi, ils ont réparti les postes, ils ont choisi pour l'ADER une mère. Une mère, une femme, pour une famille. Parce que les deux éléments essentiels de la famille sont concernés, sont les cibles de l'ADR. Il s'agit de la femme, il s'agit du jeune. Ils se sont souciés et c'est ce qui me fait un peu un poids. C'est-à-dire je mesure l'ampleur de ces responsabilités, compte tenu de l'importance que nos autorités accordent à nos cibles qui sont les éléments majeurs de la famille, la femme et le jeune. Nos autorités se soucient de leur autonomisation économique. Nos autorités se soucient de leur inclusion sociale. C'est pourquoi j'ai pris la pleine mesure de cette responsabilité. Et Madame la déléguée, je l'ai dit tout à l'heure aussi devant l'inspecteur général d'État, en vous reprochant gentiment de laisser en rade les membres de l'opposition dans vos financements. Par contre, moi, j'ai juré de ne pas faire d'exclusion. Je n'en ai pas le droit. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé d'être inclusive. On m'a demandé d'avoir une approche maternelle. On m'a demandé d'avoir de la tolérance. On m'a demandé d'avoir de la compréhension à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des bénéficiaires, de les servir, qu'au niveau du personnel de l'ADR. Nous allons devenir une famille, mesdames, messieurs les membres du personnel. Nous allons entamer une aventure exaltante, celle de servir, celle de changer des vies. Nous allons un peu hausser les épaules et un peu nous considérer comme le bon Dieu. C'est-à-dire travailler à changer des vies, travailler à revigorer des familles, travailler à, trouver, à faire trouver du travail, travailler à exterminer, à éliminer, à, radicaliser, à radier la pauvreté. C'est ça que nous allons réussir. Je vous invite à cela. Je serai à vos côtés. Je vous accompagnerai. Nous allons célébrer vos succès. Nous allons rassurer enfin les partenaires techniques et financiers qui vont nous accompagner. Nous avons besoin de notre accompagnement. Mais nous avons besoin aussi, Madame la déléguée, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué, on a demandé euh, aux de nous accompagner, nous avons aussi besoin de l'accompagnement de nos autorités. Parce que nous allons travailler en toute intelligence avec les pouvoirs publics. Et ces mêmes pouvoirs publics vont nous accompagner à les accompagner, vont nous accompagner à aller vers les parce que je suis adepte de la territorialisation. Mon sujet de thèse, c'était la gouvernance territorialisée, modèle de développement des terroirs. Nous allons, avec nos bénéficiaires, développer les terroirs. Nous allons les, les trouver jusqu'au niveau des terrains. Ce ne sera pas de tout repos. Mesdames, Messieurs les membres de la terre, je suis une femme de terrain. Du temps où j'étais ministre de la Femme, je ne faisais que deux jours dans mon bureau. Le reste, c'est sur le terrain. Nous allons ensemble, sur le terrain, trouver nos cibles, les autonomiser, les inclure, avoir une approche salutaire pour les associer à ce que nous faisons. wala fi dañ ne loo xam-xam biir waaye mu def ci loo yëgul nañ dem ci ñoom déglu leen nañ dem ci ñoom laaj leen nañu jël li ñu jox d'abord li ñu yàlla jox ak fi ñu yàlla teg vous avez raison dem la déléguée ñu dem jaamu fa yàlla C'est ce que j'avais fait en 1995 quand j'entrais en politique. J'étais allée à Touba daal di ñaan yàlla ne sëriñ bi su fekkee ni lii may def mënul nekk njariñu fa ma dëkk yàlla bu mu ci am dara am naa ci dara nag lu nekk maa fa doon première première femme maire première femme présidente conseil départemental au niveau du Sénégal nombre d'années yi ma def ministère de la femme kenn def ko lii ñu joxe tey ma madame la déléguée j'ai géré le petit crédit des femmes j'ai géré le fonds de l'entrepreneuriat féminin j'ai géré trois fonds avec des bailleurs le PNUD dans le cadre de la lutte contre la réduction de la pauvreté terme que j'ai banni d'ailleurs je dis qu'on n'a pas besoin de réduire la pauvreté on a qu'à l'éradiquer mu jeex pauvreté dafa war jeex ci Sénégal le Sénégal a eu son indépendance depuis combien d'années 65 ans depuis 64 ans. Le Sénégal doit se développer. L'intelligence est là. Ces beaux messieurs qui sont là vont travailler à trouver de bons financements, à identifier les besoins de nos, de nos groupes. On n'a plus besoin de groupes vulnérables. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de développer des entrepreneurs. Nous avons travaillé avec la BAT, toujours dans le fond de lutte contre la pauvreté. Nous avons travaillé avec la Banque mondiale dans le cadre de l'Agence du Fonds de développement social. Mais nous avons travaillé avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre du Fonds de l'entrepreneuriat. Et quand je gérais l'entrepreneuriat, j'étais très à l'aise parce que j'étais ministre d'État. Et on m'avait demandé de gérer l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous comptons notre trophée avec les précis. Nous avons essayé d'industrialiser les activités des femmes. C'est ça, mesdames, messieurs, que je voudrais qu'on fasse ensemble. Je voudrais qu'on relève le défi. Je voudrais qu'on change les vies. may sant yàlla bu baax bi ma sama ñaari xarit nekkatuñu doomu kenn parce qu'il s'agit du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak du premier ministre Ousmane Sonko ñoom dañu ni deer dañ koy wutal yaay parce que bu ñu ko wutalee yaay yaay du am âge dañ ni deer dañu bëgg ko ko uuf bu ko defee ñu jox jigéen vous avez raison madame la déléguée les femmes sont là les femmes vont rester l'ADER est au féminin on va la l'ADER au féminin pour donner une âme à l'ADER pour que DER am xol pour que DER xale yi muy uuf dootuñu dem ci géej gi pour que DER ji waroon nawle jigéenam yi muy dimbale jigéen ñooñu mu développé leen nga xam ne dañuy weesu ay nanu crédit ñu nekk ay femmes entrepreneur loolu mooy suñu objectif te ñëpp yam ci nag ñëpp yem ci parce que loolu ci suñu ADN nekk ñun bëgguñu injustice combat bu ñu porté dans la vie mooy bëgguñu injustice te loolu personnel bi fi nekk ma fekk leen fi damay dalal seen xel ñun dax lañu lu ci nit duggee rek noonu la ci nii ne loo liggéey rek moom day am parce que du ñu yemale buy day olof fi ñooy wax ni bu tëdd ye bu tëdd yemee ak waaxu kon jàmbaar dootul gàpp kon nag ñi nga xam ne ñoo opté pour liggéey na leen leer ni leurs efforts ne seront pas vains nous saurons reconnaître ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas et nous allons accompagner tout le monde ku bëggul liggéey sax dinañ ñëw fexe ba nga liggéey parce que da ngay inspirer c'est ça aussi notre notre rôle aussi c'est d'inspirer surtout les pas dañ leen di inspirer yu liggéey surtout les jeunes dañ leen di inspirer ñu liggéey parce que yaay moo fi nekk yaay mooy ànd ak yéen ci liggéey bi yaay mooy fekk seen moroomu jeunes yi moo leen di inspirer pour développer leen su ko defee dafay yomb ndaxte bu fekkee ni gis nga nit nga xool ko xam ne yow yaa ko jëlee ci niveau un grace à financement grace grâce à ton encadrement, grâce à ta formation, grâce à ton suivi évaluation nga fexe ba delloo ko dignité nga fexe ba yëkkati ko mu romb la ak oto nga ni kii de bi may ñëw ci moom 10 000 laa ko joxoon mu fay nga jox ko 20 000 mu fay nga jox ko 50 000 ngeen di progresser ba 500 000 ngeen di progresser ba 10 millions mu installé entreprise am. romb la ak otoom satisfaction mënatu koo weesu loolu mooy satisfaction ci liggéey loolu moo tax man dig naa leen dañuy ànd ñun ñëpp boole suñu effort yëpp liggéey parce que loolu ma président sant li ma président sant mooy yónni ma ba pare nag yàkkamti ma donc amuñu temps ñëw maa ngi leen di nuyu tey mais comme que invité yi rax nañ ñu bu subaa. dinaa def réunion recevoir tous les chefs de service recevoir le personnel gannaaw suba ñu àndaat kenn ku nekk wax ma li nga liggéey bu vendredi ngeen jox ma ko samedi dimanche lundi ñu retrouver tewaat ma gis li ngeen liggéey ñu àndaat continuer noonu tous les jours ñu gisante tous les jours ñu waxante tous les jours ñu àndaat tous les jours ñu dem ci terrain bi tous les jours ñu wax ak cible bi ba nga xam ni ay bénéficiaires lañuy am bénéficiaires yi xam ni ah xaalis bi ci réew mi ñoo ko moom mais gis nañ ko su boobaa nag dañuy am du ñu am xaaj ak seen du ñu xam ku ànd ak ñun du ñu xam ku àndul ak ñun parce que état ñëpp ko moom état ñëpp ci bokk su boobaa boobu rek lay raw ñoom abi boobaa nag. ñu woo ñëpp bu ko defee ñu liggéey l'essentiel est que nañ liggéey abi sax day ñëwaat liggéey leneen li ci des moo di nag la question qui fâche mooy le recouvrement ñi yore bari nañ ko fay fu bor nekk nag dinañ ko fekk fu bor nekk dinañ ko fekk de amuñu ci xarit amuñu ci mbokk amuñu ci dëkkandoo am ñu ci ku xonq am ñu ci ku ñuul fu bor nekk dinañ ko fekkee man fayu bor rek laa mën te daf dul dëgg du yoon nga jariñu ci dara ba pare ni keneen du ci jariñu du yoon donc yaakaar naa ni dinañ mën a déggoo parce que nit ki bu xamee li nga bëgg yow itam nga xam fi mu nekk rek di ngeen mën a juboo maa ngi gërëm ñëpp nag maa ngi sant ñëpp maa ngi fàttaliku samay waajur di leen ñaanal yàq la di gërëm borom kër gi di gërëm sama njabootu bopp di gërëm nag loo xam ne du politique nag abi mooy les militants da ànd saxal liggéey ak mil ñi nga xam ne ñooy responsable nekk ci coalition Diomaye président te ñu ci bëri ñëw fi tey pour soutenir ñu parce que ñoo bokk bëgg-bëgg li ñu sant ñun lañ ko santandoo bi ñu décidé ne dañuy jàppale président de la république dañoo d'accord ni dinañ def réduction des comptes dañoo d'accord ni dinañ rationaliser les ressources du pays dañoo d'accord ni du ñu pasar pasaree xaalisu réew mi ndax fi ñu jóge dafa sori fi ñu jóge dafa am ñoo xam ne dañ cee dee ñun ñu door a fi ñu jóge dafa am ñoo xam ne dañ leen a tëj tëjati leen ñu door a yegsi waaye réew mi itam dafa jar li ñu yor ñu jox ko ñu ko moom su ko defee benn xale dootul dugg ci géej gi benn xale dootul jël yëfu jàmbur benn xale dootul chômer ndaxte doom yi ñoo leen jur ngeen baal ma àq wasalaam